di leen ziare bu baax di ñaan suñu boroom yàgg leen fi di ñaanal mbooleem suñu kilif yi nga xam ñoo ni jiitu ak njaboot gi ñu fi nekkal ñëpp yàlla doole ci ñoom yërmande ak njëgal di am mbégte bu baax ci teewaat fii ci bis bi nga xam ni moom la sëti sëriñ Mahmoudane di taxaw ngir fàttaliku ak dundal li nga xam ni moom la borom barab bi nekke woon ndax lu mel ni dafa doon loo xam ni dafa am solo ci fan yu baree bari ndax dina tax yin fi feeñal rawatina conférence yi nga xam ni ñu ngi koy def di ko dugal ci ay thèmes dëkk bi dina si gën a dund dina si gën a xam fan mooy koso dinañ gën a xamit kan mooy sëriñ Mahmoudan tem yi nga xam dañ ko fi jël di ko wax ndax bu ngeen gisee thème bu daaw bi te sëriñ Mbàkke mu sëriñ Abdourahmane defoon ko jëmewoon ko ci ajjuma am na solo lool kon bu ñu del dellusiwaatee indiwaat beneen tem boo xam ni dafa jëm ci alxuraan sëriñ Touba ak alxuraan comme ni ko bu ñu ci àggee ci ñi nga xam ñoo war jël kàddu dinañu euh, gën a leeral thème boobu bu baax a baax ak ki nga xam ne moom moo koy def kon liñ jubloo wax foofu rek mooy am solo gi nga xam ne jataay bi am na ko solo ak bàyyi xel bi nga xam ne war nañ ko koo bàyyi xel bu baax a baax ba buñ si àggatee rek ku ci nekk fànnoo ko te def ko muy si yitte ba heure buñ joxee rek ba war a mën a teew fii ñun ñëpp ñu teew fi kon ñu njëkkanteeg waxtu wi rek ba nañu gën a guddi ci kàddu yi danañ jox sëriñ Ibrahima Mbàkke moom sëriñ Fallou sa Dieye mu yëkkati kàddu wax ci turu daayira bi nga xam ni moom moo taxawu liggéey bii muy daayiratu sët sëñ Mamour Dani suñ noppee dina jox sëriñ Mouhamed Mbacke moom soxna maam Fatim Mbacke moom sëñ Mamour Dani mu yëkkati kaddu bu noppee ngir leeral thème bi nga xam ne ci la sëriñ Ahmadou Mbacke moom soxna Mariam Daaru Muxti jëm ngir leeral ci sàkku ci leeral mbooloo mi ci sëriñ Touba ak alxuraan moom sëñ Ahmadou moom dinañ si gën a def ak leeral bu baax a baax ba nit ñi man koo teewlu xam fi nga xam fi la sëñ Ahmadou Mbacke jëm su noppee nag ñu jox sëriñ Amadou Mbacke moom soxna Marème mi nga xam moom mooy taxawu conférence bii suñ noppee ñu def si kilifa gi nga xam moom moo fi teew mu ñaanal mbooloo mi ñu ngir waajal suba incha kon dañuy jox kàddu bi sëriñ Ibrahima Mbacke moom sa sa jéem wax ci turu sët sëriñ Amadou waaye a siyaara suñu jawriñ ji ci biir suñu kilifa muy sëriñ Maxtaar di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ba mbooleem naal yi nga xam ne am na ko ci barab bu sell bii ñu nekk suñ borom defal ko ci lu kawe njottam ak mbooleem ñi mu seqal liggéey bi yëpp di siyaara mbooleem ñi nga xam ne teew nañ ci baas bi te yaakaar naa ne suñu kilifa gi suñ ginnaaw nekk fii di sëñ maam Thierno teewal leen fi ñoom ñëpp nga xam ne mbooleem luñ fiy def rek ak di ko wax ci turam lañ koy defe ndax mooy suñu jëw jëwriñ di suñu mag di suñu lépp di jëwriñu liggéey bi lépp luñ ciy def rek ci ndigalam lañ koy defee ak ci kàddoom ñu koy sant bu baax cant googu itam ñuy santaale mbokkam yi nga xam ne ñoo la nga xam ne ñoo bàyyi koo Daaru ti teew ci jataay bi ku ci mel ne sëriñ maam Thierno moom sëriñ Bass Abdou Khoudoss mi ngi doon toog ginnaaw bi nga xam ne moo war a taxawee waxtaan wi xam ne min nañ ko ci barab bi te yaakaar naa ne bu ñu demee ba ci biir waxtaan wi dinañ ko xam waaye itam moo leen mbokk yi nga xam ne teew nañ fi yëpp rek buñ duggee ci lim xëy na dinañ jur waaye bu ñu tuddee sëriñ maam Thierno rek tudd sëriñ Xaadim moom sëriñ Habib moom Cheikh Moudou Balla tudd sëriñ Cheikh Abdou ak moom sëriñ Modou sëriñ Abdoul Khoudous ak mboolem mbokk yi ñu àndal yépp dinañ mën a yóbbaale ñépp waaye itam sant ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko Daarul Mannaan ca Touba nga xam ne lu mel ni buñ koy taxawal ak mu jot dañuy teew ànd ak ñoom liggéey bi ànd ak ñoo jotaay bi muy ak cant bu rëy ci ñoom ñu leen di sant bu baax a baax ci teewaay bi. di jégalu waat bu baax itam ci yéex a ji di ko jégalu suñu Ahmadu ak mboolem mbokk yi fi teew waaye xëy na jamono ji moo xate noonu rek ak doxin sant bu baax di leen gërëm di yëkkati suñu bi nga xam ne moo lëkkale sëti sëriñ Mahmoudane yi nga xam ne liggéey bii ñuy amal ñoo ko amal ko waxtu wu nekk ñu nekk fi di ko amal ñi nga xam ne itam ñoo bàyyi ko Daaru Mandaan sëriñ Cheikh Awa Balla sëriñ Abdou Lahad ak sëriñ Ahmadou taaxa ak mboolem mbokk yi ñu àndal yëpp teew bu ñu leen tuddee rek dinañu yóbbaale mbokk yëpp leen sant bu baax di leen gërëm ak yi nga xam ne bàyyi ko nañ Touba ñu ngi seen suñu ginnaaw sëriñ Sidi Fall ak mbokk yi ñu àndal yëpp di leen sant waaye comme ni ma ko waxee léegi rek di yëkkati suñu kaddu ci turu njabootu sëriñ Mahmoudan ñu sëti sëriñ Mahmoudan yi nga xam ne liggéey bu mel nii ñoo ko amal di ko taxaw am mu jot at yi weesu yëpp ñu amal ko di ko taxaw muy liggéey bu amaam solo boo xam ne ginnaaw bi nga xam ne dañ cee am ndigalul Serigne Makhtar nga xam ne biñ ko ko waxee itam mu rafetlu ko lool ànd ceeb ñun nga xam ne jëfam man naa ne waxtu wu nekk moo ciy njëkk ndax saa yu ñu jógee jëm ci liggéey bi rek ba ñëw ci moom di ko yeesalaat ndigal li day daal di yëkkati lam cay def daal koy def loolu di wane ak bëggam ak jàppam ci mbir mi. ak xam gi mu xam ne lépp moom lañ koy defal ndax loolu la koy waxee waxtu nekk day wax ne lii moom euh, ñun ngeen koy defal kon yaakaar naa ne loolu dañ ko cay sant bu baax a baax a baax di ko ñaanal mu yàgg koo taxawee buñ ko santee dañuy sant sëñ Abdou Lahad waxtu wu nekk taxawaay boobu la ci am di ci sonn lool waxtu wu nekk muy laaj ak a nemmeeku liggéey bi fu mu toll moom itam ñu ko sant bu baax a baax ak mbooleem jaboot ak sëriñ Mahmoudan gépp ak sëriñ Maam Thierno mi nga xam ne itam mooy seen doom di seen jëwlin di jëwriñ liggéey bi itam moom itam di ci jàmbaarloo mbooleem luñ ciy def lu nekk moo cay jëfa ma cay jiitu ay xalaatama cay jiitu kon yaakaar naa ne moom itam dañ koy beral ak cantam di ko sant bu baax a baax a baax buñ leen santee rek dañuy santaane waa dëkk bi yëpp ndax ñoom ñooy jëwriñ buñ leen tuddee rek dañuy tudd dëkk bi yëpp waaye itam nag liggéey bi waxtu buñ ko yëkkatee rek dafa am ay jëmm yoo xam ne ñoom lañ koy àndal muy daayira yi nga xam ne ñoo ci kër gi waxtu bu nekk ñu leen di soññi nga xam ne liggéey bi yëpp ñoom lañ koy àndal ñu ciy jàmbaar lool wax dëgg yàlla bu ci mel ne daayira Muhsinina bi nga xam ne moom la sëriñ bi dénk lépp lu jëm ci màggal gi nga xam ne lu jiitu ñuy taxawal conférence bi ñoom it waxtu wu nekk lépp loo xam ne lu aju ci bas bi la aju ci màggal gi lépp ci penc yi ñoom la ko sëriñ Mamor dénkoon sëriñ Maxtar itam feddali ko nga xam ne ñoom bi ñu ñëwee dama leen di wax ne ñun ci seen liggéey lañ ñëw rek di sof waaye liggéey yéen ci waxtu nekk ñoom it ñu leen di sant bu baax a baax ñu ciy jàmbaar lool wax dëgg yàlla bu ñu leen sante itam dañuy sant daayira Miftaahul a nga xam ne moom it ci daayira kër gi la bokk ñoom it ñu ciy jàmbaar lool di leen sant seen taxawaay di leen gërëm bu baax a baax a baax waaye itam di sant daayiratul xiyaar li nga xam ne moom itam moo féete ko Sëñ Maxtaar waxtu wu nekk ñuy jàpp ci liggéey bi di ko ànd ak ñoom ñoom it leen di beral seenu cant di leen gërëm bu baax a baax a baax waaye itam daayira nooru daara yi ne itam waxtu wu nekk noonu la koy amalee ci mbooleem daayira yi di jàpp ci liggéey bi di ci sonn lool di ko ànd ak ñoom ba tax na dañu ci benn coono ngir ñoom association bi nga xam ne itam moo lëkkale ñi nga xam ne ñooy aju ci Daaru Koso ñëpp ñoo it kenn ku ne xam seenu liggéey ak seenu taxawaay ñoom dañ leen di beral seenu cant ndax jàpp bu ñuy jàpp ci liggéey bi ak sonn bu ñuy sonn ci liggéey bi nga xam ne lépp luñ ciy yëkkati ñoom ñooñu lañ koy àndal waaye itam mbooleem daayira yi nga xam ne rek aju nañ ci kër sëriñ bi ñëpp loolu lañ koy taxawale daayira bi nga xam ne mooy itam moo nekk Touba di waa Touba yi sëriñ sang jaxate sëñ sang ñang jiite ko am na ko sëñ àll ak mbooleem mbokk yi ko àndal ñëpp rek ñoom it di ci sonn loolu waxtu wu nekk sëñ maa leen di sant bu baax ci seen taxawaay di leen ci gërëm bu ñu leen santee itam dañuy sant mbooleem daayira yi nga xam ne wala mbooleem dëkk yi nga xam ne ñoo aju ci daal Koso te wër dëkk bi nga xam ne ñoom it liggéey bi bis bu yombee rek ñoom ñoo ko yombal ndax seen jàpp ak seen liggéey bu am solo bu ñu ciy def ñoom it ñu leen di beral seen cant bu baax a baax a baax waaye itam ci cant googu itam ñu ciy tàbbal ñoo xam ne rek xëy na bu ñu waxee association bi wala ñu wax al muhsinina wala muhsinat dinañ tàbbi ci biir waaye dañ leen di benal seen cant rek ngir sonn bu ñuy sonn ci liggéey bi wax bu lu nekk at mu jot ni ko tàmbalee ñoom it noonu rek lañ koy àndee ñun di ci solo loolu wax dëgg yàlla muy ku ci mel ne Serigne Ndiaga Sall nga xam ne moom waxtu lu nekk liggéey bi. ca Ndakaaru ba ci bii noonu la fay tàmbalee di ko ànd ak mbooleem mbokk yi di ci sonn lool guddeeg bëccëg suba ak ngoon waxtu mu nekk mi ngi ci moom it ñu koy beral ak cantam bu baax ak sëriñ Xaadim fal ak sëriñ Mahmoudan Diop ñoom it di ay jàmbaar lool ak sëñ Thierno Jaxate ak sëñ Alsaan Diop ak sëñ naa Si li muy toog ñoom it ñu leen tuddee dañuy yóbbaale mbooleem mbokk yi ndax li waral tudd gi itam mooy sonn gu ñuy sonn ci mbir mi di ko ànd ak ñoom di yi soññiwaat itam leen daayira yi nga xam ne tudd nañ leen ñëpp di leen leeralaat liggéey bi rek nga xam ne ni ñu ko àndee buñ nee sëti sëriñ Mahmoudane rek xëy na daayira daa mënut a ñàkk aw tur waaye buñ nee sëti sëriñ Mahmoudane rek lu yaatu la loo xam ne ñu nag ñoom ñoo ko bokk ñoom ni ñu amee ay daayira di dajale seen i addiya di ko indi ñu nit noonu lañ koy defee kon yaakaar naa ne ñu leen di xëj boolewaat ci liggéey bi di leen soññiwaat xam ne ne sax ñu ngi ci waaye nag di leen ko gën a leeral rek ba nga xam ne liggéey bi liggéey bu yaatoo yaatu la ndax lépp luñ ciy def rek sëriñ Mahmoudan moo tax ñu ngi def kon yaakaar naa ne ñoom it sëriñ Mahmoudan rek moo leen ñor kon ñu ngi leen koy leeralaat bu baax baax di leen xamal ne buñ ne rek day la seeti sëriñ Mahmoudan yi ñu yaakaar ne rek ci ñun ñun rek la yem ci suñu biir ndax ne bu doon ñun rek du demee loolu waaye itam seen njàmbaar ak seen jàpp moo waral ñu leen di soññiwaat bu baax a baax di leen leeral liggéey bi ndax liggéey bi li ko waral rek muy liggéeyub sëriñ Mahmoudan liggéeyub sëriñ Mahmoudan nag képp ku aju ci sëriñ Mahmoudan rek ci nga bokk kon yaakaar naa ne ñoom ñu ngi leen ciy soññiwaat bu baax a baax a baax waaye itam di sant Serigne Mor Diané itam nga xam ne moo leen xasiida yi nga xam ne defaroon nañ ko ngir waajale ko bis bi da am taxawaay am solo da ca waaye maire bi nga xam ne moom mooy yilif tund ñu nekk di commune bu Mbadiane di Serigne Abdou Ndaw moom it li bis bi jubsee dañ fa ànd dem fa man ak Serigne Cheikhouna moom it mu taxaw ci taxawaay bu am solo loolu keroog bi nga xamee ne ñi ngi def appel bi dafa dagg a yitteem ñëw bis bi itam mu jox oto yebal otoom oto bi nga xam ne mooy oto mairie bi ak mboolem lu ci aju lépp loo xam ne lu ko war la ko def ko ci moom it ñu ngi koy beral ak cant ci turu daayira bi ci turu Serigne Mame Diarra di ko sant bu baax a baax daayira bi nga xam ne itam moo lëkkalee sëti Serigne Mirame yi ñoom it nga ne lépp benn la yaakaar naa ne mbokk gi génn la ñoom it ñu leen di sant bu baax a baax ci seenu jàpp ak ci seenu teewaay di leen ci sant bu baax a baax a baax ndax te teewaay bi rafet na lool ndax xam nañ li boole diggante bi wax dëgg yàlla ñu koy dox kon ni ma ko waxee woon léegi rek di soññiwaat daayira yi nga xam ne rek ñoo aju ci kër gi ñu la leeral ne liggéey bi liggéey la boo xam ne bu yaatoo yaatu la boo xam ne tëjuñu suñuy buntu yemul rek ci sëti sëriñ Mahmoudan yi waaye képp ku aju ci sëriñ Mahmoudan la nga xam ne sab liggéey la ndax bis bi ñuy def bis la boo xam ne bu ñuy waajalee màggal gi la kon ci màggal gi la bokk te sëriñ bi itam joxe ci ndigal sant ci loolu nag nga xam ne lépp luñ ciy def dañuy dem ba ci moom mu joxe ci ndigal ñu am na ko mboolem mbokk yi kon yaakaar naa ne mbokki taalibe yi itam da ciy baax ñu leeral leen loolu bu baax ndax ña nga sax waaye ab soññee moom ka ka ka nga xam ne moo nekk ca la war a nekk rek moom la ñuy soññ kon ñoom itam ñu leen ciy soññiwaat bu baax ak mboolem dëkk yi nga xam ne ñoo aju ci tund yi yëpp te bokk ci kër sëriñ Mahmoudane ñu leen di leeralaat liggéey bi rek ni mu tëddee liggéey bi tëju du sëti sëñ Mahmoudane yi rek ñoo ko seet seen biir ndax yaakaar naa ne bu doon ñoom rek ci seen biir dinañ ci néew doole loolu ndax wu takkuwuñu waaye nag buñ ca mënee dara di ko jéem ñetti at yi yëpp ñu koy def te waxtu wu nekk saa yu egsee rek at mi nga xam ne ci la nekk day dàq mi ñu weesu loolu bu amee rek ñoom mbokki talibé yi ñoo ko ñoo ko waral ko waral kon ñoom day aaj ñu sant leen bu baax soññi leen itam nag ñoo xam liggéey bi daal mi ngi fi te fas nañ yéene taxawoo ko waxtu wu nekk ndax wax dañoo wax war xam ne lépp loo xam ne lu aju ci barab bi la wala mu war fee am wala mu war fee nekk ci ñoom ñii la war kon nag waxtu wu nekk nañ cay nekk te nga xam ne liggéey moom mi ngi fii sëñ bi joxe na ci ndigal te lépp loo xam ne luñ ciy def rek ci seen ndigal lañ koy defee sëñ maam Thierno mi nga xam ne mooy jëwriñ ji itam di ci sonn loolu waxtu wu nekk noonu rek lu koy waxee di ci jàmbaar dëgg yàlla ñu koy dara cantam bu baax a baax di sant mbokk jigéen ñi nga xam ne waxtu wu nekk ñoom it ñu ngi ciy sonn lool di leen sant bu baax a baax di sant mboolem mbokk yi nga xam ne teew nañ fi yëpp xam naa ne ak cant moom boo ci duggee boo duggee ci lim da nga sonn waaye nag ak cant moom bàyyiwul kenn wax dëgg yàlla ñu ngi leen sant bu baax di sant sëriñ Ahmadu mi nga xam ne itam moo war a amal waxtaan wi waxtu wu nekk mu itam mu jàppandal ko lool nga xam ne ren xëy na xaw nañ ko ko yaxawal waaye teewul mu lool ci ak jàppam ca xam lépp luñ ci def moom lañ koy defal kon moom itam ñu koy beral ak cantam di sant mbooleem ñi nga xam ne ñoo ci aju ñëpp ni ko waxee léegi rek di leen sant bu baax di ñaanal sëriñ Moxtaar mi nga xam ne mooy kilifa gi suñ borom yàggal ko fi lool te wéral ko mbooleem naal yi nga xam ne itam am na ko ci barab bii te suñu jàmbaar ja tàmbale woon ko muy sëñ Mamoor moom it ñu koy fàttaliku ci ay ñaan bu baax a baax ndax biir nañu ne lii bu ko fekkoon xolam dina ca sedd lool ndax lu mu yàgg bëgg la kon yaakaar naa jëmm ji nga xam ne itam moo fi nekk di jëwriñam noonu rek la ko bëgg ñoom moom it ñu koy fàttaliku ci ay ñaan bu baax di ñaan yàlla yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem rakam yu baax yi nga xam ne ñoo fi nekk di taxaw liggéey bi itam te waxtu bu nekk ñu nekk ca yàlla leen fi yàlla yàggal lool te wéral leen ñun ñii itam di seen i taalibe di seen njaboot fas yéene aw ci tànk yooyu ñu aw ngeen ñaanal bu baax ñun sax ca bu baax te nekk ca ndax liggéey bi moom li ko waral lépp loolu rek la sàkku tuyaa ba tey itam mbir la moo xam ne ni ngeen ni ngeen ciy liggéey yéen taalibe ñun nit noonu la ñu waree ndax suñu mbir la lu ngeen ci def ñun ngeen ko defal kon yaakaar naa dañuy ñëw ànd ko yéen rek liggéey bi gën a nekk benn lépp luñ ci def ñoo xam ne sëriñ Mahamoud lañ koy defal kon daal ñu ngi ubbiwaat bunt yi di soññiwaat mbooleem mbokk yi nga xam ne ñoo aju ci ñu ngi leen di soññi di leen leeral liggéey bi daal seenu liggéey la kon ñu ngi leen ci woo di leen ci xaar di ñaan yàlla tam itam mboolem loo xam ne luñ ci tàmbale rek suñu borom defal ci ndam ci barkeb ndax am na ci yaakaar bu baax a baax ndax ñoom moom seenu liggéey day yomb lool ndax fàggu nañ lépp ñaan nañ lépp fàggu nañ lépp boo jógee jëm ca nag da ngay sabab lu ji rek su boobaa suñu borom da lay daal di gàttal kon nag bu ñu amee tawfeex yi nekk ca loola dañuy ñaan yàlla saxal ñu jàpp te itam di ci woo ñëpp rek di yemale foofu kàddu yi di ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu